هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا ورسول الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم allahuma callimna maa yanfacuna wanfacna bima callamtana wa zidna cilma rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri waxlul cuqdatan min lisaani yafqahu qawli mbokki jullit yi ni seetaan ci seen chaîne bi di Daara Koki TV ñu ngi dellu siwaat di leen nuyu di leen dolliwaat ziyaar ci weeru koor wi nu nekk di ñaan yàlla mu dimbale nu ba nu taxawe ko lépp ci jàmm matal ko koor geeg jaamu yàlla yeeg ñaan yi yépp yàlla dimbale nu bañ taxawe ko ci anam nga gën a rafet te yàlla nangul nu boole nu ca ñi nga xam ne day bind seen tur ca aljanna te doot fa jóg te nu yàgg koo fekke itam nag yàlla boole nu jéggal jéggal jullit ñépp ñëwee yeeg ñu ñëwagul ñépp kon euh, comme niñ ko baaxoo woon bis bu nekk rek démb xam ngeen ne ñu ngi woon ci suuratu naas tey jii eh, ci ndimbalal borom bi subhaanahu wa taala nu fas yéene dugg ci lii nga xam ne nii mooy suuratul falaq xam naa ci njëlbeen dañ koy jàng nu dégg ko comme niñ ko waxe woon ne eh, jataay bi dafa am ñaari wàll kenn wàll gi mooy eh, jéem a fexe ba njàngin wi ñuy jàng alquran wér ñaareelu wàll gi mooy fexe ba li ñuy jàng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 Eh, muy saar woo xam ne juróomi aaya la kon guddul wax dëgg mokkal ko jafewul suratul falaq niñ ko waxe woon mook suratul naas mën nañ ne dañoo bokk lépp moo tax lu bari ci liñ ci wax jotoon nañ ko wax ca suratul naas yi ba noppi xëy na eh, yu ci baree bari duñ ca delluwaat muy ñaari saar yoo xam ne ñoom ñaar ñoo ànd wàcc ñaari saar yoo xam ne màkka lañu wàccee di saar yu am solo lool nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daana bari lool lu mu koy jàng waxoon nañ leen ni yonent bi sallallahu alayhi wa dafa waxoon na ñaari saar yi nit musloowul lu gën ñaari saar yi wala nit musloowul sax lu toll na ñaari saar yi lu nit di musloo daal kon ñaari saar yi moo ca gën am na solo nit ki war ko jullit bi war ko mokkal war ko fonk bari lu mu koy jàng rawatina ak nag nga xam ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam daana ko jàng gannaaw jullik farata gune waaye daana ko jàng suba ñetti yoon daana ko jàng ngoon ñetti yoon boole ko ci li ñu tudde adkaaru sabaax wal masa te mooy e, tudd yàlla wala xeeti ñaan yi nga xam ne ni jullit bi daf koy def suba di ko def ngoon mooy lu am solo lu kenn warta sàggana lii ci la bokk daan ko boole ak qul huwa allahu ahad benn bu ci nekk suba daana ko jàng ñetti yoon ngoon daana ko jàng ñetti yoon te du bokk ak ni ko doon jàng ci gannaaw julli farata yi kon saar lawu am solo yonent bi alayhi saar yi dafa nekk saar woo xam ne ni des ci daan muslu daan ci léemu xale yi kon na ko borom kër yi fonk na ko njaboot gi itam fonk feexe ba tamal leen ko ñu di ko jàng ko di ko léemoo bu ñuy tëdd yonent bi alayhi salaatu wasalaam daana def balaa tëdd tàllal ay loxoom ëf ci jàng euh, qul huwa ahad jàng qul audu bi rabbil falaq jàng qul audu bi rabbin naasi raay ko ci boppam raay ko ci kanamam ak fu yaramam fu yaramam loxoom mën a daj ci yaramam mu raay ko fa def ko ñetti yoon loolu saa su ne balaa tëdd daana ko def kon loolu ñu bàyyi ko xel kon saar la daal woo xam na ni am na solo lool xam naa ñu jublu ci eh, tafsir bi incha allah taala borom bi subhaanahu wa taala gannaaw ba mu ne bismillahi rrahmani rrahim nga xam ne saar yépp ci alquran dañ leen di ubbee bismillahi rrahmani rrahim wenn saar rek ci alquran muy suuratu tawba moo àndut ak moom lañ ubbeewul bismillahi rrahmani rrahim kon gannaaw nañ ko borom baa ngi ñëw ci qul qul waxal niñ ko waxe woon mën naa jublu ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam muy qul yaa muhammad waxal yow muhammad bu boobaa comme niñ leen ko waxe woon ci bi ñuy wax qul a'udhu bi rabbin mooy ñun buñ koy wax dañ koy wax ngir roy ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam moom miñ ko waxloo woon mu wax ko ñu nit dañuy ñëw roy ko ci wax jooju wala qul waxal yow nit nga xam ne kon lu yaatu la ñépp ci bokk képp kuy ab jullit rek yaa ko moom kon Euh, bu ñu naan xul foofu bu ñuy wax dañuy wax ngir jëfe ndigal loo xam ne ni dafa jóge ci boroom bi subhaanahu wa taala comme niñ ko waxee ci suuratu naas lii saar wi saaru muslu la boroom bi subhaanahu wa moo la ko jox yow jullit ndax euh, bëgg nga mucc ndax bëgg nga ñoŋ ndax bëgg nga am jàmm ndax bëgg nga raw te moom moo la mën a musal moo la mën a may jàmm moo la mën a rawale kon bu ne laa jaaral fii ndax nga am loolu kon yéene na la ko lool kon war nga ko fonk war ngaa jaar fa mu la jaarloo ngir nga am résultat boobu mu la wax kon moom ci borom borom bi subhanahu wa taala ci boppam moo lay dicté li ngay wax ngir nga mën a mucc moo lay dicté li ngay wax ngir li ngay ragal nga bañ koo gis ngir li ngay tiit nga mucc ca loola borom bi ne la waxal qul waxal looy wax audu neel maa ngi muslu maa ngi muslu maa ngi làqu maa ngi wéeru bi rabbil falaq maa ngi muslu ci boroom ki nga xam ne ni mooy boroom suba borom falaq falaq buñ ko waxee dafa am ñaari eh, firi te ñaar yëpp alquran indi ko falaq mooy lépp loo xam ne nii dafay xar dara génn ca rek falaq lañ koy tudde ni ki nga xam ne ab saal euh, saalu màngo wala saalu darkase wala saalu tàndarma buñ ko jiyee day jékki-jékki fet xar garab génn ci wala gàncax génn ci wala ab doomu gerte buñ ko jiyee day jékki-jékki xar gerte génn ci ni ki noonu lépp loo xam ne nii day xar dara génn ca loole mu def falaq la tudd loolu kenn rek a koy def muy borom bi subhaanahu wa taala moo taxoon yàlla ne faaliqul xabbi wa nawa yàlla mooy ki nga xam ne ni mooy xar mooy fepp fekk aw aw fepp mu xar ko génnee ca gàncax gam ca war a génne wala génnee ca garab nga ca war a génne kon loolu falaq la waaye falaq itam day fiiri suba xam ngeen ne guddi ni mu lëndame mu jékki-jékki ne tàcc leeruk suba génn ci loolu falaq la tudd kenn dong nga ko mën a def kenn doo ngay boroom muy yàlla subhanahu wa nga ne nag kii boroom loolu maa ngi muslu ci moom maa ngi ñaan maa ngi koy ñaan mu musal ma maa ngi daw di wéeru ci moom maa ngi daw di làqutu ji moom ngir mucc mucc ci lan mu musal ma ci lan min charri ma xalaq maa ngi koy ñaan mu musal ma ci ayu lépp lu mu bind ayu lépp lu mu bind gis nga bi nga ko waxee amul lu des maa xalaq parce que waxoon nañ la ni la ki bind ak lu ñu bind doo nga fi nekk ki bind kenn la mu yàlla leneen lu dul moom moo la bind kon yow daw nga wéeru ji ci aji bind ji ne ko na la musal ci ayu lépp lu mu bind loolu matale na min charri maa maa ngi ñaan yàlla moom musal ci ayu lépp bind borom bi subhaanahu wa taala mbindaa yi def ci am yoo xam ne nii nooni ya ca des lañ waaye nag ñëpp ci loxoom lañ nekk yëpp moo leen boole yilif ku mu aar rek nga aaru ku mu aar beneen mbindaafoon mu jóg jëm si ci sa kawit du man ci yow dara moo tax dangay daw làqu ji ca boroom gis nga dañ joxe benn exemple rek maanaam tey ab xaj boo ko ragalee dangay bu la naroon a sonal dangay daw làqu ji ci boroom xaj ba moom lu mu ko wax mu def ko bu ko gëddee mu taxaw bu waxee mu def li mu wax kon dawal làqatu ci borom xaj bi waaye boo juboo wut borom xaj bi ba mu seetaan la boo moytuwul danga am jafe-jafe yaag xaj boobu yi kon sunu borom mbindaa fanam yëpp yëpp yëpp loo ci bëgg a mucc dawal làqu ji ci moom mi leen bind moom mi leen moom moom nga xam ne nii moo moo naan def leen ñu def moo naan bàyyi leen ñu bàyyi dawal làqatu ji ca moom moo tax maa ngi muslu maa ngi ñaan yàlla maa ngi ñaan maa ngi daw di wéeru ci sama boroom maa ngi daw di làqu ji ci sama boroom maa ngi daw di ñaan yàlla moom musal ma min sharri ma xalaq ci ayu lépp lu mu bind lépp nag loola bi ñu ko waxee rek lépp duggoon na ci waaye dafa am yum ca setteewaat di ko tudd ndax xëy na euh, bëgg ñu gën leen a bàyyi xel ndax xëy na jagle gu ñu am yoo xam ne nii dafa am ay ay ay danger yu yu yu ñu làmbool moo tax mu ñëw wamin charri raasiqin maa ngi koy ñaan mu musal ma ci ayu guddi ida waqaba bu demee ba lëndam xam ngeen ne guddi eh, wala fi dañ koy faral di wax ne guddi dafa am boroom guddi yu baree baree bari ci lay jóg guddi eh, borom bi subhaanahu wa taala daf nañu daf ñu ko defal ngir ñu dal ngir ñu dal ci ñun nit bu ñu demee bay dallu ci guddi gi am na yeneen i mindaafan yoo xam ne ni heure boobu mooy seen heure jóg te am na ci yu baree bari yoo xam ne nii noonu nit lañ bu ñu tasee nit mën naa am mën nañ koo lor bu ko defee ngir mucc ca yooya muslul ñaanal sa borom subhaanahu wa taala mu musal la ca waaye itam guddi même ñi nga xam ne ni dañ nit ci boppam bu di fexeel di fexe di nas ay pexe di nocci ñaare yu ci baree baree bari guddi la nit ñi di lalu di ko def pexe yu bari ñi nas ay pexe yu bon ak yu baree baree bari guddi lañuy bàyyi ba suuf sedd ñuy weddi def lañuy def ba ci ñi nga xam ne nii ay njabarkat lañoo ay bon yu bon yu ñuy def yu ci baree baree bari guddi lañuy xaar yi lay def loo dañ naan la boo bàyyee ba ker ba suuf sedd yooyu lañ lay wax moo tax guddi li ci lëmu dafa bari kon ñaanal sa boroom subhaanahu wa taala mu musal la ci ayu guddi wa min charri gaasiqin ak maa ngi koy ñaan mu musal ma ci ayu guddi ida waqaba bu demee ba lëndëm bu demee ba guddi gi sori nga xam ni lépp dal na bu boobaa daanaka saay-saay si ci lañuy jóg waaye lu mën a xew rek yow weeru jul sa borom xam nga wax nañ la sànq ni la yonente alayhi salaatu wassalaam daana def bay tëdd da daan léemoo loolu kooku ki ko def guddi gi yëpp day nekk ci kaaraange day nekk ci sécurité lu ñuy nasag lu ñuy nocceek yépp yàlla mën na ko caa musal moo tax yooyu ëpp nay sàggana nit ki balaa tëdd lu mu yàkkamti yàkkamti lu mu gëmmentu gëmmentu na toog ba def léemaayam ba noppi doog a tëdd doog tëdd te itam li ñuy dénkaane mooy nit ki na fexe ba toujours nay taqoo ak njàpp waaye rawatina ak nag buy tëdd na fanaanoo njàpp ki fanaanoo njàpp daanaka yu baree bari mënta agsi ci moom fanaanoo njàpp rek sécurité la kon nañ ko fonk bu baax a baax a baax kon wa min charri ida waqab wa min charri nafathat maa ngi ñaan yàlla mu musal ma ci ayu njabarkat yi nafaat mooy njabarkat yi njabar day loo xam ni euh, lu bona bon la te yàgg naa yàq yàgg naa yàq dana yàq ay diggante dana yàq sax nit ki ci boppam jabar def na nit lu ne jabar yàq na diggante bu nekk kon lu jara muslu la lu jar di moytu la lu jara ragal la moo tax wa min charri nafathat an nafathat fii suñ borom bi mu koy bi mu koy bi mu koy tudd jigéen la jëfandikoo maanaam dafa mel ni ñi gën a miin ci di tëneeg di petaaw di ay fas ak yu mel noonu dafa mel ni jigéen ñi ñoo ci xaw a gën a bari suñu borom subhaanahu wa taala fii ñoom la tudd waaye ñépp ci bokk képp kuy njabar rek moo tax min charri as saaxiraat wala ñu ne min charri nufuusi saaxeraat wala bakkan yi nga xam ne ni dañuy njabar muy bakkan bu bakkanu góor bakkanu jigéen kon ñépp ci dugg ñooña maa ngi lu ci ñoom an nafaasaat njabarkat yooyu nga xam ne nii nafaasaat lañ mooy dañuy jàng di ëf fil uqadi ca seen pas-pas yooyee ñuy def dañuy jàng di ëff fil uqadi ca pas-pas ya ñuy fas jàng-jàng nganam nganam nganam ne ëf daal di fas nganam nganam ëf fas nganam nganam ne ëf fas ne la takkal dugal nañ la ci njabar kookee la muy def ak njibar la moytul la muy def ak njabar la moytul te ñaan yàlla mu musal la ci loole muy def képp ku ko doon def na ragal yàlla te jéem a tuub loolu képp ku daan dem ci ku mel noonu wala ngay déglu ay waxam mu di la def wax ngay ngay ngay gëm wala ngay nga di ko laaj ci say mbir lenn moytul te xam ne yaa ngi ci danger bu rëy rëy rëy yonent bi alayhi salaatu wasalaam dafa ni ku ñëwal ku mel noonu ab gisaanekat njabarkat ku mel noonu ku ko dikkal ku ñëw ci moom laaj ko dara mu tontu la nee na yow ñeent fukki fan say jaamu yàlla yow say julli yàlla soxla ko amu ca soxla bu yeboo sax ba mu la waxee ba pare nga ne ko li nga wax du dëgg ba yeboo lam la digal nga dem defoo ko ñëw gi nga ñëw ci moom laaj ko mu tontu la rek xañ na la maanaam yàlla mere na la ci ba la ngay jaamu yàlla ñeent fukki fan amu ca soxla loolu lu garaaw garaaw la ab jullit genn julli dong bu ko wóoree ne nanguluñ ko ko dana tiit dana ragal dana dana ne waaw lii lu ma def bañ nanguluñ ma julli gi kon war naa góorgóorlu ba lépp luy tax luy dox digganteem ak boroomam ba di ko jural merum borom bi subhaanahu wa taala mu daw loola di muslu ca loola nee na nag bu fekkee daf laa wax nga gëm ko moom xamal ne yow moom bay boo nga tuubaat dugg ci diine waaye génn génn nga diine moom tuubaatal delluwaat ci diine waaye yow moom génn nga diine kon euh, njabar dul tuuti ci bakkaar yu mag yee mag ci la bokk bakkaar yu mag yee mag ci la bokk nañ ko bàyyi xel te muy lu tasaaroo lool ci sunum réew bu ñu wax ñëwal ak njabar ab ab jabar nag bu njëkk de nit da daan jóg dox ak tànkam ñëw fekk si ko fi mu dëkk waaye léegi si am na yeneen i jumtukaay yoo xam ne nii nit ki mën naa fekki jabar bi mën naa dem ca moom te du jóg du déplacé wu fi mu nekk loolu yépp ci ñëwal ko la bokk jël téléphone am woo ko laaj ko lam soxla mu tontu ko la mu koy tontu loola moo jóg dem ca moom ñoo yem yooyu yépp nañ ko moytu ku mel noonu nit ki daf ko war a moytu ba bul wax dara ci ay mbiram la nga mën daal mooy bu fekkente ne yàlla may na la xam-xam wala nga mën a wax ak moom ba mu tuub dellu gannaaw ca loola loolu moom alhamdulilah def ko boo ko mënul sori ko soril kooka ab jabar des koy moytu kon ku nekkoon ca loola na tuub ngir yàlla te dellu ci dellu gannaaw ca loola génn ca ba set wecc ku tuub yàlla jegal la bu dee ki ko doon def la wala bu ko doon bu dee ki ko doon deflu la wala bu daan sax ki ko doon bàyyi xel di ko gëm nañ tuub ñoom ñëpp te dellu ci borom bi subhaanahu wa taala te xam ne loola yëpp dara du ci dëgg lépp ak neen la lépp lu bon l lépp luy alak nit la lépp luy tàbbal nit ki safara la yàlla nu ci yàlla musal kon wa min charri nafathaati fi maa ngi ñaan yàlla musal ma ci ayu jabarkat yi nga xam ne nii dañuy jàng di ëf ci seen pas-pas yooyee ñuy fas yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa ne ku pas ku fas ab pas-pas ëf ca na xam ne njabar na ku pas ku fas ab pas-pas ëf ca na xam ne loolee mu def ak njabar la kon nag loolu lu mat a bàyyi xel la kon kooku looloo tax borom bi subhaanahu wa di ñu digal ñu di ci muslu wa mi charri xaasidin ida xasad wa min charri xaasidin maa ngi koy ñaan mu musal ma ci ayu aji añaan ku añaan kañaan dafa bon ki añaan dafa jara muslu ci ay mbiram ay aw ayam ndax dafa man a yàq lu baree bare baree bare ndax borom bi subhaanahu wa taala digal nu ne nanuy muslu ci ayu aji añaan kañaan mooy a dafa am ay degré bokk na ca la ca jiitu mooy yàlla defal nit ki dara la mu def neexu la loolu benn degré la ci kañaan la mu def nit ki la mu am neexu la loola benn daraja la ci añaan la ca topp mooy yàlla defal nit ki dara la mu def neexu la waaye yaa ngi mébét mu dañ mu tàggook moom mu ñàkk ko loola beneen degré la ci kañaan benn baaxut yépp a bon kañaan baaxut waaye degré bi gën a kawe mooy yàlla defal nit ki dara neexu la nga bëgg mu dañ waaye ngay def luy tax mu dañ moo xam ci wax wax ngay wax luy tax mu dañ wala ngay tax def luy tax mu dañ wala ñàkk googu mu la ñàkk neex nga di ko fésal ci jëf wala nga di ko fésal ci wax bu boobaa moom sa kañaan yaa ngi koy yaa ngi moo tax mu ne wa min charri xaasidin maa ngi koy ñaan mu musal ma ci ayu aji añaan ida xasada bu demee ba kañaanam nga dikkal ko te mooy dem na ba kañaan googu yi nekk ci moom mi ngi koy mi ngi koy feeñal ci wax wala mu ngi koy feeñal ci jëf mu ngi def loo xam ne nii luy luy lu war a wëlbatiku dem ci kaw nit ki la bu boobaa loola moom lu garaaw a garaaw la kañaan benn baaxu ci waaye nag rawatina nit ki dem nag ba di ko ba ko jëmmal nag bu boobaa ku jara muslu la ku jara wattandiku la ya ca des bu fekkente ne dafa nekk am xol bu tàng ci li kii am amu naqar ci li kii am neexu ko boobaa moo cay gën a sonn moom mi kañaan moo cay gën a sonn dañ ne kañaan moom balaa attaqué kenn borom lay njëkk a attaqué parce que xol bu tàng lay dëkkee te mën naa am sax ki ñuy añaane yëgu ko ki ñuy añaane yëgu ko waaye ki koy añaane moom xol bu tàng lay dëkke te du bariwul njariñ kon mm, jikko la joo xam ne nii jikko ju bon bon la nit ki war na ko wattandiku rawatina ak ab jullit waaye itam nit ki war naa fexe ba lépp luy tax ñu di ko añaane muy moytandiku loola moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa ne woon na fa inna kulla di ni'matin mahsud képp ku yàlla defal xéewal rek am na ko ko ko añaane kon nag yaa war di fexe ba di moytu di moytu bañ di manifester yenn manifestation yoo xam ne nii day tax nit maanaam di mel na da ngay fésal li nga am da ngay fésal li nga xam wala da ngay fésal ni nga mel loolu mën na laa jural nga am ñu lay añaane say njaboot léeg-léeg nga gis koo xam ne nii doomam moo koy exposé ci anam goo xam ne nii euh, maanaam lu lamiñ mën na ko lor bët mën na ko lor yooyu des koy moytandiku loolu baaxut nit moo taxoon yonent bi alayhi salaatu wasalaam ni woon bu ngeen dee doxati ay soxla dee leen ko booleeg nëbbu istainu ala qadaai xawaijikum bil kitmaan seeni soxla yi ngeen di dox dee leen ci boole nëbbu ndax eh, boroom xéewal gu ne am na ko ku ko añaane kon loolu mat naa wattandiku nit ki day day day day day day moytandiku di exposer boppam di exposer njabootam di exposer alalam ci bëti nit ñeeg lamiñu nit ñi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam Eh, wax na ne bu fekkonte ne am na lu mën a jiitu dogal dogal kon eh, bët lay doon bët dëgg la lu wér la day dal nit mu yàqu day dal nit mu yàqu lamiñ day dal nit mu yàqu al aynu xaqun wal lisaanu xaqun lamiñ day tudd dara loola yàqu lamiñ day wax ci nit kooko yàqu la nit ki nag moo war di wattandiku moo war di muslu moo war di di waaye di dawandiku itam di wattandiku yi nga xam ne ni mën na koo jural euh, lamiñ dal ko wala bët dal ko wala aji añaan am ci moom aw yoon boole kook nag di muslu ci boroomam subhaanahu wa taala kon loolu mooy suuratul falaq saar la woo xam ne nii wax dëgg yàlla kaaraange la kaaraange la bu fekkee jullit bi fonk na ko gëm ko liñ waxoon nag ci ñaan mooy dafay dellu ci ki nga xam ne nii mooy aji ñaan ji ñaan ngànnaay la rek ngànnaay la ngànnaay pour mu am efficacité bi mu war a am day dellu ci ki ko yor ngànnaay li bu melee ni mu war a mel nit ki bu yoroon jaasi tey jaasi ju ñaw lool jaasi yi kese du dagg waaye day dellu ci effet bi jaasi ji di def day dellu ci ki yor jaasi ji bu fekkente ne yor ki ko yor ku borom kàttan la ba noppi jëfandikoo jaasi ji fi mu ko war a jëfandikoo te jaasi ji ni mel ni mu war a mel fu mu dal rek ñu yëg ne fii jaasi jaar na mu ñaan yépp noonu lañ mel la ngay jëfandikoo nay ñaan gu wér kon mooy ngànnaay li na nekk ngànnaay dëgganta la ngay jëfandikoo nay ñaan gu wér goo xam ne ni lenn bokkaale amu ca lenn loolu islaam di bañ amu ca ñaan gu wér waaye itam yow mi koy jëfandikoo nanga nga ni nga war a mel ci sell ci pas-pas bu wér na ko jëfandikoo fi nga ko war a jëfandikoo del ñaan ki nga war a ñaan del ñaan ki nga war a ñaan te di ko jaare fi nga ko war a jaare bu boobaa laa shakka ni faw yàlla daf lay nangul borom bi yonent bi alayhi salaatu wasalaam dafa ne yàlla rus na ab jaam tàllal ko ay yoxoom te dëggu ca mu di ko delloo te tegu ca dara yàlla ku ko ñaan moom may la bu fekkente ne ñaane nga ko nañ ko na nga ko war a ñaane waxoon nañ ko ca eh, jataay yu weesu kon loolu ñu bàyyi ko xel suratul falaq kon ñaan la muslaay la nañ ko eh, nañ ci lu bu baax a baax yàlla nañu yàlla defal tawfiq defal nu njariñ ak ndimbal ci alquranul karim hada wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain yéen a ngi seetaan daara Koki TV kon nag gaaw leen gaaw abonné te activé cloche bi ngir man di jot lépp lu aju ci daara ji daara Koki TV la chaîne au service du